Maïmouna lan lañu déggul depuis démb tu me mbiru procès ci ñuy wax affaire u viol souvent ay kàddu yoo xamante ni neexul dinañ ko ci dinañ ko ci dégg mais defe naa li xew démb ak liñ ci dégg doy na waar doy na waar par rapport ak suñuy valeur doy na waar par rapport ak éducation bi ñu bëgg a jox suñu doom yi tere nañ leen dem jàngi ñu tëj lekkool yi mais tëjuñu seen nëpp seen nopp surtout avec les réseaux sociaux gëmmuñu nelawuñu gis nañu lépp dégg nañu lépp il faut que ñu ñëwaat à la sérénité la sérénité et loolu mënuñ ko occulter dañuy jëm ci jongante. mais booy def. maanaam appel booy booy lancer un appel euh, pour qu'on en revienne. Mais, à une sérénité. oui euh, da nga koy adresser d'abord. président de la République Macky Sall mais di nga ko adressé aussi Ousmane Sonko mais à tous les euh, camps mais parce que ce sont les deux camps qui s'opposent j'en appelle j'en appelle à tous les camps je les appelle à la sérénité tenue ak retenue comme ni ma ko waxee parce que pour man les Sénégalais li ñu leen soxal tey c'est les défis du développement encore une fois